xayru la nabi ya nabi bëgg naa la Muhammadu Mustafa man bëgg naa la yeye Muhammadu man bëgg naa la ajaama yàlla nuy wayal njool maaka ajaala nuy wayal sunu waaja yow ajaa Rosette la nuy wayal njool maaka Cheikhu ajaa Rosette la nuy wayal njool maaka yéen bëgg yonent bi la nuy wayal sunu waaja قل قال هو البدر قلت البدر شق له قالوا هو الغيب قلت الغيب لم يدمني محمد من بغنا لا ajaama yee dundal nu way njool maaka aca wasalliyan yaa ilaahi wajiziyan abadan عنا محمدا مختار في القدم محمد أي بغنا لا يا نغيما nu way ya nen njool maaka aca dundal ñu way ya nen njool maaka aja ma yeela nuy wayal njool maaka sa dund am na njariñ nu way yanen benn maga ki ko jago mooy sama waaja Mustafa way wi moo ko jago moom jool maka way wi ki ko jago mooy sunu waaja sunu woy wi ki ko jago mooy njool maka jundal aja woy wi ki ko mooy sunu waaja hege sunu woy wi ki ko mooy njool maka yeneen yàlla